<coughs> doon compagnie boo xam ne dañuy jaay essence euh, ci réew Gambia ñoom nag fan yi nag euh, pure dañu leen anamal si euh, koppar yi nga xam ne nag war nañ koy fay ngir am nag luwaay nga xam ne dañ koo jalgati ci nii dafa mel ni na déggoo boo xam ne bëgg naa doon seen diggante pour nag ñu mun a jàllale li nga xam ne nag moom mooy draft constitution bi nga xam ne député yi dañ koo jëloon sànne ko ci biti ngir nag dañoo ñaan jotu ne dafa amoon loi yi nga xam ne yoo fa nekk yooyu nag ñu ne ñoom ànduñu ak yooya xibaaru biti réew dinañ ko tàmbalee ak Amérique foofu nag Joe Biden tey ji nag lañ koy waatal pour mu doon nag ñeent fukk ak juróom-benn li Amérique seen i euh, président te nag ñu ne am na liggéey bari nga xam ne nag moom moo ko nekk di xaar gannaaw nag bu euh, président Trump nag jeexalee South Africa seen health minister bi mu ne nag coronavirus bi doon na loo xam ne doomu réew yi South Africa dañ ko bàyyi xel dañ a bàyyi xel ndax nag second wave bi nag nu muy wàllaate dafa gaaw lool te nag am na gi jéego yi nga xam ne ñu ko seddoo waaye nag doomu réew yi ñoom ñoo leen war a jàppale pour nag ñu mun a génne jàngoro bi nag seen dëkk moo yi ak yeneen xibaar daal si jàmm ñu ànd ak yéen ci faram fàcce su ko defee dal leen si jàmm ñu dooree nag ak njiit réew bu Gambie His Excellency président Adama Barrow moom nag soo leen di fàttaliku ñu ko waataloon euh, ci atum foofu la Dakar Sénégal ci capital bu euh, Sénégal ginnaaw bu ñu ko defee président Adama Barrow nag si lañ tàmbaliwaan doxalin bu ees ci réew Gambia Gambien si nag daal di am li nga xam nag moom mooy yaakaar waaye nag ñeenti at ba tey président bi nag ak lii di réew Gambia ba léegi yaakaar bu ñu amoon nag ci wàllu di démocratie tey ji nag lañ si gën a takku mu doon loo xam ne nag jàpp ne ne dafa rëccoon réew mi wala boog réew mi amuñ ko woon si ñaar fukki at ñaari nga ne yaa jabe mu ngi ko woon réew Gambia si doon jiitaan bi nag président Adama Barrow Euh, réew mi nag gis ni ne daal am na coppite yu mucc ab yi am na file euh, bokk na si nag mooy wàllu yoon yi nga xam ne nag ñu koy defar parce que nguur gi nag dañoo gom ne yoon yi ak liggéey réew mi daal euh, mënuta réew mi mënta dem ci si gannaaw loola moo tax daal ñu jàpp ne lu jëm ci wàllu lii di koom-koom réew mi daal bu ñu ko waree dooleel dañoo am pour defal li nga xam ne nag moom mooy yoon yi ak yeneen mbir nga xam nag dafay jàppale lii di réew mi président bi tamit nag di fàttaliku bés bi dafa daal di euh, gërëm sant gërëm li nga xam ne moom mooy Gambians euh, si euh, ñi nga xam ne nag ñoom ñoo jël xajaloo bu dox seen diggante bi daal koy tegee boor jiital li nga moom mooy intérêt si Gambia président bi amul foofu rek daal dina wane mbégteem ak kontaante tamit ci ECOWAS African Union Security Council bu United Nations ak i tamit nag yeneen réew yi nga xam ne ñoom yëpp jóg nañ pour jàppale li nga xam ne nag moom mooy Gambia euh, moom mooy président Macky Sall président bu euh, Sénégal ci taxaw bi nga ne nag defal nañ ko defal nañ ko ko bu mu tukkee dem foofu ca Dakar Sénégal ak i tamit nag Gambien si nga xam ne lu ëpp juróom fukk junne si ñoom ñi daxoon nag dem làqu ji foofu ca Sénégal lañ leen dalal foofu la yëpp mu ko say gërëm président bi nag fa mu jeexale woote na nag pour jàmm yokkute ak bennoo nag pour mu daal di def ne nag dafa am nag ci dañ ko war a di yaatalal rawat na ci wàllu waaye nag mu ne réew mi rek moom mooy pour mu continuer di dem mooy nag bu ñu mankoyee doon ah, benn président bi nag mu ngi oote ne daal dañu war a fàttaliku ne Gambia dafa am mbir boo xam ne dafa war a nekk xooli saa yu nekk mooy lu ñu ooyee one Gambia benn Gambia one nation benn dëkk one people benn nit loolu daal saa yu nekk sóoraale bataaxal bi foofu la jeexee Dia Oil seen management bi moo koy fan yi daal dafa am pura euh, tuuma bi nga xam nag ñu ne tuuma nañ ko gars yi euh, te nag euh, ñoom ñi di Dia Oil ñu ne tuuma boobu nag dañ ko daal di naqarlu waaye tamit dafa am boot boo xam ne moom la waa pura nag nekk di leen xoolee maanaam dañ leen teg boot ba tax dañ leen alamaan daanaka koppar yi nga xam ne tuuti mu mat 1 million dalasi ngir yéen a ci ay luwaay nga xam ne dañ koo jalgati ci réew mi ci ñu ngi koy samp daana ci jaayal management bi si sañi bopp nag ci lii di press release bi nga xamante nag daal di woon neen koo génne ñoom Piura di wax ne daal li nga xamante ne nag mooy sañi liggéey bu ñu tàmbale ci Kairaba Avenue ak Wellingara foog ñi daal di ko tas wala itamit nag fexe naka lañ koy defee ba lii di pamit bi nga xamante nag war nañ ko war a a am pour def tabaxum station daal di ko def ci anam ñu a defee jaar ci yoon bi nga xamante nag leen war a jaar ndax di Piura ci boppam nag wax ne ne a jaaruñ ci yoon bi nga xamante nag leen war a jaar su ko defee ñi daal tabax li nga xamante nag mooy seen petrol station yooyaam waaye nag ñoom jaaweel jiite ko nag di moom nga xamante nag mooy Mamadou Haydara dàqalu na tuuma bi da wax ne lu tax sax ñoom ci sañi bopp leen daal di wax li leen ndaxte boo ko seetloo yeneen pétrol station ñi ci béréb yoo xam ne lii di Pura si seeni daal dinañu ko rek wax ne dinañ ko war a mën a fay jiite ko di wax ne daal ñoom dàqalu leen lii tax te nag boo ko seetloo bind neen sax ab protest letter di wane ñi nga xamante ne ñooy Pura ne li ñu def daal foog ñu seetaat ko te itamit nag ministre of petroleum si seeni bopp dinañ ci def ab gestu pour leeral li nga xamante nag mooy mbir mi ci jamono juñ tool nii Dado Thiam Star TV si bataal bi nga xam ne nag ko joxe woon ci altine bi wala ñu ko jàllale ci altine bi International Institute for Democracy and Electoral Electoral mooy kuréel gi ñu ooy IDEA di seetu wàllu démocratie ak élection ñoom nag wane ne daal ñu ne Gambie nag seen political parties yi ak député yi fu mu toll nii dafa mel ni déggoo nag mu ngi bëgg dox seen diggante pour nag su ko defee réeroo bu dox seen i diggante ci wàllu li di eh, daf constitution bi dañ koy jël daal di koy tegee boor ñu mun na nag bàyyi élection eh, loi yu bees yooyu mooy loi eh, tere bu es booba mu mun a jàll ci li nga xam ne nag moom moo di di pencam la réew ma Seydou Camara former président bu réewu Nigeria di Goodluck Jonathan invite woon nañ ko ci biir réewu Gambia ci weeru décembre bi nga xamante ne moom moo weesu mu ñëw ci capital bi di Banjul nag pour waxtaan lu aju ci wàllu constitution bi nga xamante rek waroon nañ koo amale fii ci biir réew mi mu di constitution bu bees bi ñu tuppee ko ci draft constitution bu mu delloo ci réewam nag dellu si waat na ci weeru janvier pour continuer waxtaan yooyu pour fexe ba gis ne dinañ amale interparty dialogue bi nga xamante ne dinañ fexe ba gis ne ndimbal dina bàyyeekoo ci pencam réew mi mu di ñeel draft constitution bi ñu am ci biir réew mi waral na ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk International Institute for Democracy and Electoral Assistance génne nañ ab bataaxal di wane ne former président Goodluck Jonathan li nga xamante rek moom la mbébétoon ci waxtaan yooyu mu doon amale ci digganteem ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo ŋànk politique bi fii ci biir réew mi ak ñi nga xamante ne rek ñoom ñooy xeex ak yeleefu doomu aadama dafa mel ni am na ci ndam ndaxte jamono ji nag waxtaan nañ ba am nangutoo pour nan la ñuy def ba dekkilaat draft constitution bi nga xamante rek bind nañ ko ci biir réew mi si noonee nag mu jaaree fa jaajëfal ñi nga xamante rek ñoom ñoo nekk political parties yu nangu woon a toog ci taabul bi pour ñu waxtaanee mbir mi pour fexe ba gis ne dinañ am yoon wiñ jaar pour dekkil draft constitution bi mu mel ni Gambia dina am constitution bu bees ci ñëw bam ñëw fii ci biir réew mi nag waxtaan na ak ñu bari waxtaan na ak nguur gi waxtaan na ak political party leaders yi waxtaan na ak parliamentarians yi mu di député yi waxtaan ak civil society leaders mooy ñu jiite kuréel yuy xeex lu aju ci wàllu àq ak yelleefu doomu aadama ak ñeneen yi nga xamante ne ay stakeholders lañ fii ci biir réewu Gambia ñoo ñëpp waxtaan na ak gaay pour ñu fexe nan la ñuy def ba dekkil draft constitution bii nga xamante ne nii dañ ko rey ci réew mi draft constitution bi nag bind nañ ko gannaaw bi nga xamante ne waxtaan nañ ak Gambiens yu bari fii ci biir réew mi ku nekk wax yan façon ngi luwaa nga bëgg pour ñu amale ko ci constitution bu réew mi gannaaw buñ ko bindee nag ñu jaarale ko fi ñu ko war a jaarale yóbbu ko ci njiiti réew mi di président Adama Barrow ñu jëlee ko foofu yóbbu ko ci néegu député yi pour député yi tamit def si ab jàngat ñu daal di vote pour amale li nga xamante ne moo nekk référendum ci constitution boobu ci néegu député yi nag fa la draft constitution boobu am ndaxte gën cee bari ci député yi ànduñ ci draft constitution boobu nga xamante ne nii bind nañ ko fii ci biir réew mi ñu jàppane nag député yi nga xamante ne ñoom ñoo ànd ak njiit réew mi di président Adama Barrow ñoom ñoo bëggu draft constitution boobu jàll su defee Gambien si dugg ci référendum li ko waral mooy président Adama Barrow mandaam xamante ne rek moom la am nilee dañ ko boole ci draft constitution boobu mu mel ni du mun a sàkku yeneen ñaari mandat fii ci biir réew mi Seydou Camara Star TV News

ngay dem quarantaine te lépp lu la si fekk daal dafay mel ni daal di si xibaar boobu. ci ab interview bi nga xamante ne mu ngi bokk ci kuréel gu dénk wàllum pàcc meeg fajoo fii ci biir réew mi mu nag ci jamono juntoon yi foog rek askan gi ñu bàyyi seen xel bu baax a ci matuwaay yi nga xamante ne tëddal neen ko pour dàqalu lii di jàngoro Covid 19 ndaxte nag depuis bu duggee fii ci biir réew mi lu toll si ñetti junne yi doomu aadama. juróom ñaar fukki nit daal dinañu am jàngoro covid 19 bi te lu toll ci téeméer ak ñaar fukki ni takk juróom-ñetti ñàkk neen si seen i bakkan kon nag lii lu jar bàyyi xel la su ko defee lii di jàngoro bi mu daal di génn fii ci biir réew mi jeex fi tàkk mu ne nag lii di second wave bi mu doon ab jàngoro boo xam ne itam coronavirus la waaye itam moo gën a mun a daaxat tosaaroo te itam nag gaaw ci lool te itam daf dee faat doomu aadama ci lu teel su duggee ci fi nga xamante nag mooy sa yaram bi loolu moo tax nag mu ne mu ngi ñaax lii di askan gi ak itam kuréel gi ci boppam ñi def seeni kémtu laa kàttan pour seet naka la ñuy def pour matuwaay yi leen ñi dal di dox ci tànk yooyu jeexal ko fi ci biir réew mi moom te docteur Ndiaye daal dina continuer kàddu di wax ne daal am na seen i waajaay yi nga xamante nag ñoom kuréel gi ci boppam def neen ko su ko defee lii di jàngorob covid 19 second wave bi le mu teel a jeex fii ci biir réew mi mu ne nag am neen ab waxtaan bi nga xamante nag séqa neen ko du sénégalais police yi lii di booda bi ñu seet naka la def pour nit ñi dambeeg dikk bi ñu seet naka lañ koy saafaree ci wàllum jàngoro covid 19 bi le mu ne waaye nag foog askan bi si sañi bopp ñoom itamit nag ñu dox ci tànki matuwaay yi le yi nga xamante nag kuréel gi daal dina ko tiddal su ko defee daal di jeexal lii di jàngoro covid 19 te fexe nag di dem def ab test su ko defee ñi xam ndax am nañ jàngoro bi mu deen laata koy daal di tasaare ci askan gi Dara Thiam Star TV mbokk yi ñu sant ak gërëm Dado Thiam si mujjantali xibaar boobu si réew mi ñu dem yàlla dem seede ji xibaar bi tëdd fañ koy tàmbalee mooy ci réew Amérique américain nag seen président bu bees bi liggéey bu métti bi ko xaar nag dafa mel ni euh, euh, xaarul nag président yi bari ci àdduna bi ndaxte nag Joe Biden euh, moom nag wane na sax yi nga xam ne nag moom moo ko gën a ittal nag bu faloo ba pare maanaam bu demee ba xas ba taamale li nga xam ne nag moom moo di di liggéeyam waaye nag bokk na si bi gën a màgg boo xam ne tey ji nag ittal na ko mooy wàllu coronavirus bi ci réew Amérique fu mu toll nii nag ñu nguur gi nag dina am digal boo xam ne dinañ ko joxe boo xam ne dafay tax ba képp kuy liggéey ci nguur daal da sol face mask mu doon warugal waaye tamit nag euh, si bépp banqaasu li di nga xam ne nag moom moo di face a jëfandikoo pour faj jàngoro ji dinañ si gaawtu ba nga xam ne nag ñëpp dinañ si mën a jot si nu mu gën a gaawee dinañ tamit sàkku li nga xam ne nag moom mooy ndimbalu néegu député pour mu am koppar nga xam ne ko jotee ak seen i famille yi nga xam ne maanaam seen njaboot yi ne soxla nañ ab ndimbal jamono yi ñu toll ñu ne nag euh, bu njëkk boo xam ne moom mooy itteel président bi mooy coronavirus bi ndax lu toll si 1.3 1.9 trillion dollars moom lañ nekk di sàkku nag ci néegu député bu Amérique te nag bépp sarta boo xam ne tey jii nag Amérique nag dinañ si dugg dinañ si soraale li nga xam ne nag moom mooy lii di jàngoro corona bi waaye tamit nag wan ne ne président euh, Joe Biden tamit dina soorale bu baax a jëm ci wàllu di di vaccination bi tamit loolu tamit nag dinañ ko boole seen i doxalin président Biden tamit ñu ne dina bokk si jéego yi nga xamante ne ko dox mooy dina jëlaat Amérique delloowaat ko si Paris Climate Accord bi mooy nangutoo bi nga amoon nañ ko ci wàllu di jaww ji te Amérique nag ñu ne génnoon nga xam ne nag dina foofu rek waaye programme yi nga xam ne na ko ba nga xam ne nag réew jullit na dañ leen terewoon dugg Amérique loolu tamit daf koy soppi ba nga xam ne léegi dafa am beneen doxalin bu ñu see def maanaam dinañ seetu ñiy dugg ci réew Amérique na seen xibaar maanaam seen jaar-jaar ak réew yi nga xam nag foofu la gaa yi di euh, bayeekoo waaye tamit boo booda maanaam euh, fence ba bi nga xam ne nag tey mu ngi koy samp maanaam mu ngi koy euh, tabax si diggante Amérique ak Mexico nee na loolu tamit nag daf koy tere si saa si ba pare koppar yooyu daf koy jël dugal ko si feneen foo xam ne nag tey jàpp na ne itte na réew li di Amérique mbokk yi South Africa seen pres eh, seen ministre bi nga xam ne moom lañ dénk wàllu wér-gu-yaram bi nag di ministre Zweli Mkhize kooku ci bi nag moo doon waxtaan taskat xibaar yi ne leen jàngor corona bi doon na loo xam ne mu ngi wër li nga xam ne nag moom mooy South Africa waaye moom ci boppam dem na wër lopitaan yi te nag gis ne daal fu mu toll am na nag jéego nga xam ne nag war nañ koy dox ministre bi nag wane na ne ministre bi nag ca kàddu wane na ne daal ne jàngoro ji fu mu toll ni muy lawaatee moo gën a gaaw euh, ba mu woon si stl bi si njëlbeen bi dafa am nag euh, jamono ji góom boo xam ne waa South Africa am moo leen nekk di sonal si jàngoro yi mooy ne dafa am ndaw yi nga xam ne dañoo góob góobuñ lii di jàngoro bi te gars yi nekkuñ di jël sarta yi nga xam ne moom la gars yi teral toppuñ sarta yi ñu teral pour ñu sol face mask di moytandiku ndaje yi màgga yi ndax nag gars yi ñu ngay def seen i parti te nag mu ne coronavirus bi si loolu la gën a aay maanaam pour mu wàllaate daal a gaaw

Basirou Sall moo nekk ci caméra bi Aliou Toungara Mbaye Mbuub ñoo nekk ci machine bi Daaro Thiam moo teewale xibaar yi jërë ngeen jëf